الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلاً rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi déglu hadis du jour noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan sunu borom tabaaraka wa mu boole nu jéggal sunuy jaamu yépp sunu borom nangul nu ko sunuy mboole mi rëcc rëcc sunu borom subhaanahu wa taala jéggal nu ko xadis bi nu leen di indil tey di xadis di jour day wax ci day wax ci ngëneelu alquraanul karim jàng ko yan ngëneel la ci nekk yan ngëneel moo nekk ci jàng alquran la xadis bi di wax xadis bi ku ñuy wax abi umaama albahili moo ko nettali ku wax abi umaama albahili moo ko nettali abi umaama mooy baayu umaama du tur turam mi ngi tuddoon suday ibnu ajlaan dafa amoon doom ju tuddoon umaama ñu ko doon wooye baayu umaama waaye turam suday suday moo doon turam ku ñu wax ajlaan moo doon baayam saxaaba bu siiw yàlla na ko yàlla gërëm suday ne moom suday mi nettali xadis bi mi ngi dëkkoon saam fa la nekkoon fa faatoo mi ngi faatu ci gàddaay gi bi mu amee 86 ans muy juróom ñett fukki at ak juróom ben ci la faatu ci la faatu mom abi umama mi ñu doon wooye sudey daf ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu iqra'u alqur'ana fa innahu yaati yowma alqiyaamati shafian li asxaabihi mu ni Mustafaa nee na na ngeen jàng alquraan iqra'u alquraana na ngeen jàng alquraan ngir lan fa innahu téere yàlla bii di alquraan ya'ti yowma alqiyaamati bisub yowma alqiyaam dafa dikk shafian li asxaabihi di rammu di ràmmu ay àndandoom moom alquran ñi nga xam ne ñoo doon asxaabul quraan ñooñu ëllëg yowmal qiyaamati ca bisu taxawaay bu yàgg ba ca bisu tiitaange yu métti ya alquran dafa ràmmu ñi ko doon jàng asxaabul quraan xadis bi day tegtale na ndekete yoo alquran ëllëg dana ràmm القران دكتي ألق يوم القيامة دنا رمو نيان لاي رمو موي أصحاب القرآن أصحاب القرآن موي نيان نيون القرآن هم الذين يتلونه ويقرؤونه ويحفظونه ويدرسونه ويفهمونه ويعلمونه أو ويعملونه كل هؤلاء asxaabul quraan ñooñ alquraan mooy ñi nga xam ni ñooñ alquraan mooy ñi nga xam ni dañ daan jàng alquraanul karim dañ doon jàng alquraanul karim ba noppi duñ yem ci jàng ko kese waaye dañ koy mokkal dañ koy mokkal duñ yem ci jàng ko mokkal ko mais dañ koy nafar fu ñu tollu dañuy nafar alquran di ubbi téere bi di liir di liir di jàng di nafar duñ yem ci nafar ko noonu rek di wax di dem mais wa yëf xamuunahu dañuy dégg li alquran di wax duñ yem ci jàng ko nafar ko dégg ko mokkal ko mais wa yamaluunahu dañ koy jëfe li yàlla wax ci téere bi dañ koy jëfe waaw li yàlla wax ci téere bi di alquraanul karim dañ koy jëfe ñii mooy ñoñ alquraanul karim ñi nga xam ne duñ jël alquraan rek def ko seen oto di ko meubler alquraan du pour meuble daa ah, déedéet alquraan du ay meuble du meuble bu ñuy meubler oto walla nga def ko ci sa saal di ko ko rafetalee alquraan du ngir loolu donte sax ñi xaw a tane di góor góorgóorlu ñooy def lu mel noonu ñi xaw a tane di góor góorgóorlu waaye Sénégal da nga dugg kër jullit fukki kër jullit doo fa fekk kaamil kër jullit doo fa fekk kaamil alquranul karim doo ko fa fekk te livre romain bu nekk ma nga fa livre romain bu nekk ma nga fa ay livre yu jar ñaar fukki junni fanweeri junni ay tomi tomi tomi tom ñi ngi ko rangale ci seen saal doo fa gis alquranul karim te borom kër ga jullit la doomi jullit lañ jabar ji jullit la borom kër gi baayam jullit la bàyyi kooka kooka baayam jullit la waaye mu juddu rekk mel ni mu mel moom daal tubaaba ko yitteel anglais ko yitteel espagnol ko yitteel chinois ko yitteel et cetera almande ko yitteel yeneen ak yeneen yooyu la jàng ci la diplômé ci la am xaalis yooyu lay dundal waaye alxuraan rien su mooyee daal ba mu nekkee xale lañ ko jàngaloon ca daara ja mu man lum jullee faatiha ak saar ca yam waaye boo fa duggoon kër jullit nga ne leen kaamil laa bëgg ñu ne la ah kaamil di amu fi nag ak ruslu kër jullit bu amul kaamil kooku naka lay jànge alquranul karim kër jullit bu amul kaamil naka lay nafe nafaree alquranul karim kër jullit bu amul kaamil naka lay déggee alquraanul karim naka lay déggee alquraanul karim moo tax lii mu ne ngëneel lu mag la loo xam ne suñ borom dana ko defal ñi jàng alquraan loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaaxe ci ci di jàng alquraan ak di ko seetantal xadis boobu muslim moo ko soloo am na beneen xadis boo xam ni al imam ibnu xibbaan moo ko soloo ca saxiixam ba jaabir ibnu abdillah nettali ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alqur'aanu shaaficun mushaffaun wa maahilun musaddaqun man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna wa man jacalahu khalfahu saaqahu ila annaar allahu akbar mu ne alquraanu alquraan shaafiun aji rammu la mushaffaun lu ñuy rammuloo la ëllëg yowmal xiyaam alquraan day ramme alquraan ëllëg jaam ñépp danañ taxaw suñ borom digal ko ne ko demal nga rammu jaam ñi la doon jàng demal nga rammu leen waaw Sidi Rama du ramm Mamadou E Bintu du ramm waaw livre français du ramm livre anglais du ramm livre espagnol du ramm mathématique du ràmm waaw bac plus un du ràmm bac plus du rammu S bac nangam du ràmm doctorat du ràmm dara dara dara dara dara du ràmm benn du ci ràmm alquranul karim mooy ràmm waaw mooy ràmm waaw jàngal ba am bac plus nangam waaw master un du ràmm master deux trois lu mu ci du ràmm licence du ràmm doctorat du ràmm alquraanul karim mu musaffaun kii rammu di rammudoo mooy alquraanul karim mu ne wa mu maaxilun musaddaqun seedekat la boo xam ne lu mu wax ñu dëggal ko ëllëg alquraan lu mu waxal nit yàlla ne ko dëgg la bu ne ko dafa daf ma doon jàng yàlla ne ko dëgg la da ko doon jàng moo tax mu wax ko ëllëg alquraan dana taxaw ne yàlla diw bi mu nekkee xale képp la ma jàngoon ubbi waatul téere ba jullit bu toog un mois du laal alquranul karim un mois un mois sax tuuti na da nga gis jullit bu toog cinq ans laalut alquran cinq ans laalut alquranul karim te ma ngi ca facebook ba ma ngi ca msn ya site bu nekk ma nga fa waaw article bu nekk mu commentaire ko waaye ubbi alquran jàng ko six ans ubiwul alquran jangu ko waxuma la mu ubi ko jangu ko me laalu ko wa laalu ko waxuma ñàkk ko laal sax me li tax nga mën laal alquran sax du koy def moy du japp julit budul japp wa julit budul japp bu yewo dal day sangu waaw day sangu waaw toccamiku pare na ca bu laalee ndox dafa dugg ci toilette bi du japp ndax du julli ku dul japp du julli nak mënu la jàng alquran mënu la laal alquran mënu la alquran mënu la laal alquran moo tax yonent bi ne wa maahilun musaddaqun ëllëg alxuraan bu taxawee ne yàlla diw miim jàngu ma woon wala bi ma jàngee la ma fàtte bi ma jàngee la ma fàtte man bi may nekk xale jàngoon naa mais damaa fàtte lépp mooy nafaroo ko nafaroo ko suñ sëriñ daf ñu daan wax ca daara ja ne alxuraan boo ko bàyyee mu bàyyi la xaj ba siiru saar waaw loolu lu ñu daan wax alquran boo ko bàyyee mu bàyyi la daan nañu wax tamit alxuraan da koy jox sa lépp mu jox la mu nga jox ko sa tuuti mu xañ la léppam moom alxuraanul karim waaw dafaa rëcc dafaa rëcc dafaa rëcc de boo ko bàyyee rek mu bala yenent bi ne nag ëllëg alxuraan lum seedal nit na dëgg la bu seedale nit ne daf ma daan jàng daf maa fonkoon daan na ma nafar daan na ma jëfe daan na ma sellal fonkoon na ñi ma jàng bu gisoon ku ma jàng rek la ñee waaye daawul ñee ku ko di diplôme bi jamono melagul nii bu njëkk ba ku jàng alquran lañ daan ñee ku jàng alquran kër gum taxaw ñaan soxna ñu may ko ko waaw ku jàng alquran dëkk bu mu dem ñu jox ko dëkk waaye euh, euh, tabaarakallaahu daggal koy tool ndax dafa jàng alquran waaye léegi kii ñuy xeeb mooy jàngkatu alquran bi balaa ñoo naw di nit rek ñu ne ah moom am na doctorat am na licence licence ak doctorat ak master la ñuy rawee la nawee nit waaye duñ ko nawee mokkal na alquraanul karim duñ ko nawee mën naa firi alquraanul karim duñ ko nawee mi ngi nafar alquraanul karim waaye daal ëppale na ma diplôme bari nay diplôme la ñuy nawee nit te ku dee ñàkk say diplôme billaahi ku dee rek ñàkk say diplôme gisaguñu kenn ku dee ñu suulaale kook di diplôme amul kenn kuy dugg biir bàmmeel ñu laaj la ban di polom nga amoon amul te ku dugg bàmmeel danañ la laaj alxuraan sa digganteeg moom nu mu meloon allahu akbar sa digganteeg alquran nu meloon ku dugg bàmmeel ñu laaj la ko waaye ñaata di polom nga amoon ndax amoon nga bac ndax amoon nga master ndax amoon nga licence kenn du la ko laaj ci biir bàmmeel wa maahilun musaddaqun alquran seedekat la bu ñuy dëggal lu mu wax rek ëllëg yàlla ne ko dëgg la lu mu seedeel nit ñu ne ko dëgg la nañ ci bàyyi xel mu safaane sallallahu alayhi wa sallam man képp koo xam ne jaalahu def na alxuraan amaamahu ci kanamam xaadahu daf koy wammat ilal na jëme ko aljana ku jël alqur'aan teg ko ci sa kanam jiital ko muy sa priorité daf lay wammat ba dugal la aljana waaye man képp koo xam ne jaalahu def na alxuraan xalfawu ci ginnaawam tubaab ak anglais ak espagnol ak sinwaa def ci kanamam jël alqur'aan teg ko ci ginnaawam saaqahu alquran daf koy màng wommat ko ila naari jëmee ko sawara xalal xolal boo jëlee alxuraan def ko ci sa kanam day jàpp sa loxo di la wommat ba dugal la aljana nga jël alxuraan def ko ci sa ginnaaw mu lay puus daf lay puus puus jëme la sawara xam nga fële daf la jàpp alxuraan daf la jàpp sa loxo di la wommat ba nga dugg aljana ba nga dugg aljana mu ne la aljana ngoog waaye boo ko defee ci sa ginnaaw sa ginnaaw lay nekk di la puus comme auto bu pan di la puus di la puus ba dugal la jahannama allahu akbar mbok yi nañu bàyyi xel ci alquranul karim fa imma yatiyannakum mini hudan فمن اتبع هداي فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سن برام نينا njub gu melni alquran ku mu dikkal ku ko topp jub doo réer doo texee di waaye ay kudd du mooyu sama téere bii di alquran ay kudd du mooyu sama constitution bii di alquran ay kudd du mooyu sama article yi di alquran ut beneen constitution ut beneen tëralin ut beneen doxalin wudul alquran fa inna lahu maishatan dankaa da nga dund dund gu xat gu naqari yowmal xiyaam wa naxsuruhu yawma alqiyaamati ama nee na ëllëg dinañ la fang boo dekkee ci bàmmeel nekk ko gumba lan moo tax mooy da ngaa dum mooy woon alquraanul karim mbokk yi ilal quraan ilal quraan ilal quraan nañ delluwaat ci alquraan nañ delluwaat ci alquraan jàng ko jàngal ko sunuy njaboot seen xadis di zuur a ngi noonu di ngëneelu alquraan nañ ci bàyyi xel ku nekk jéem koo jàng jàngal ko sa njaboot xam ne ëllëg dana muccal jaam ëllëg yomal xiyaamati lu dul alxuraan rek fii lañ koy bàyyi diplôme yi bari yi ñu nawee nit ñi tey fii lañ koy bàyyi nañ ci bàyyi xel di diplôme boo ci amul liggéey perte nga waaw boo ci amul liggéey perte nga te alxuraan amul pertement amul pertement moom alxuraan balaa ngaa xam ne amul pertement nga dem ba am quatre-vingts ans am jot waaw am jot dematoo dikkatoo wallaay toog amul lu dàq mag mu ubbi téeréem di jàng alquran amul image bu ko gën a rafet waaye mag ñi biñ jàngul alxuraan nekk mag ci la ñuy liiri journal waaw buñ xëyee journal la ñuy dem jënd journal X journal Y journal Z journal M journal K journal B di liir di commentaire rek waa di liir di commentaire rek moo tax kanam gu ñuul rek liiri journal ci mag kanam gu ñuul rek alquran mooy leeral kanam. alquran mooy mooy mooy mooy baskil bu maandu bi loo ko jox mu delloo la ko tabaarakallaahu yàlla yàlla defal nu dégg ak topp defal leen ko lii moo doon seen xadis di jour ak seen mbokku oustaz Makhtar Sarr